lii ngeen di xamee ndax boobu baax na wala baaxul te dinaa xeex pum pam pim pam pim pam pim pam pim dina xeex dina bëre billaa wala taala dina xeex dina bëre dina xeex dina bëre comme ba gaynde la waaye maa la wax lii gaynde yow mës naa la wax luy dañ yow daanu fi ni mbër ba damm ko ah ñaata yoon laa fi daan mbër ba damm ko ah dama koy damay xeex ak moom day xeex il faut mu xeex pimpa pam jor addo ati ba ati ñi daw yuxu estar bi jog yëngal ko ah! Ele vai checar. Ada Fass songu na léegi. Ada Fass dos ñoom ñaar xeex nañu. Dos daw Ada Fass Ada Fass Ada Fass jàpp nañ na. Ada jàpp na benn loxoom. Dos a ngi wut fu mu jàpp dos jàpp Ada jàpp na mi ngi bëgg a fàq waaye dos bañ Ada Fass Ada Fass dos a